association bi ni mu ko gisee mooy tey dafa am taxawaay bu mu taxawee parce que dafa am te ay jigéen ñoo xam ni danoo dëkk Médina boole seen bopp tudd ànd fal Pathé Ndoye Ba ñoo organiser lii taxawal ko pour jëmmal Pathé Ndoye taxawaam ci Médina ak liggéey bi muy def biir Médina parce que Pathé Ba Médina la dëkk et di doomu Médina tey lii lu mu yàgg def la donc xaarul ba nu réclamer ko pour mu jóg du ko def donc tey mi ngi ñun mënul lu di gërëm ànd fal Pathé Ndoye muy ay jigéen ñu farlu ak ay góor nekk ci gox bëgg gox ba xam li gox bi laaj te nit ku nekk li ngay def da ngay ñaan yàlla avancement am si te danoo toll foo xam ni il est temps doomu Médina jóg jël Médina téyel ko seen loxo parce que Médina rek la nu am te Pathé Médina rek la am Médina mooy xëyam mooy gontam si lay xëy si lay gont lépp lu mu lépp loo xam ne Médina soxol na ko jóg na si taxaw ñoo ngi remercier bu baax ànd waa mouvement ànd fal Pathé Ndoye Ba ki jiite di fat ñaan taxaw ni sama wet ànd ak ay sëram ay mbokkam ay xaritam ay am di jàmmam génn tey pour taxaw distribuer li nga xam ne pandémie bi moo ko waral ñuy ñaan yàlla pandémie bi nga xam ne wàcc na suñu kaw yàlla na lu ko yàlla teg si jàmm ak salaam loolu daal moo doon taxawaayu tey bi pour jóg séddale euh, masques yi ak euh, gel yi ah dugg wax ak nit ñi dugg si kër yi jox nit ñi sensibiliser leen parce que réew mi loolu la laaj réew mi ku ne danga ci am wàll doo toog ba borom réew mi ni jóg leen pour def donc kenn ku nekk si ñun dëkk ci gox présenté gox war ngaa mën a jóg def li nga xam ne moo la war loolu la Pathé Ndoye Ba def tey jërëjëf. ñun ñooy waa mouvement ànd fal Pathé Ba Médina waa ñi nga gis nii ñëpp membre group baa ngi nii ñoom Fatou Kiné Sène Mounas Mbara ñun ñëpp waa ñun ñoo mobiliser wu ak waa Médina ak suñu yaay bi nga xamante ne moo ñu doole depuis au demi jusqu'à la fin muy Ndeye Amy saw ñun ñoo def suñu mouvement woo waa Médina ñëpp ñëpp a génn parce que Pathé Ndoye Ba dafa nekk nit ku baax nit ku humble nit ku riche nit ku bëgg waa Médina nit ku bëgg goxam bi feebar bi commencé ba tey macha allah mi ngi ciy bay waaram ndaxte ñun ñoo toog rek mu wooñu ñu ne ko grand bi ñun sax dañ la bëggoon woo sa waxtaan ak yow mu ne ça fait l'occasion ñu ne ko ñun de dañoo bëggoon maximum de gel ak maximum de euh, masque pour xale yu Médina yi hôpitaux yi daara yi ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ci Médina bëgg xeex feebar bi mun nañu amul benn problème bu fournir ñu ay masque ak ay gel yu baree bari macha allah yëpp ñu ngi nee ñu teg dañu gàdd tuuti rek pour ñu distribuer nii waaw ñun nag képp ku jug pour bëgg jàppale Médina te nga xamante ne représenté goo dara ci Médina bi ñun kooku la ñu soxla soxlaw ñu koo xamante ne day toog di wax rek te du def dara ndax xam nga ni nee nañu ku lay kuy raam di la yóbbu buy naaw du la fi bàyyi wax dëgg yàlla geste bii ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax di ko wax ne am nañ contentement bu mag waa Médina yëpp ñëpp ñu ngi ci ginnaaw ànd fal Pathé Ndoye Ba pour xeex feebar bi macha allah ñu ngi koy jaajëfal di wax njokkonjal kontaan nañ ci moom torop torop macha allah. bu ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala sant goo xam ni am na tàmbali waaye amul fu mu yem macha di yëkkati ay kàddu cant. boo xam ni mi ngi bàyyeekoo ci daara sëriñ malik Mahsin Diop ñu teg ko ci sa loxo yow mi nga xam ni yaa fi représenté sëriñ pate ndoy macha allah mu am bëgg-bëgg goo xam ni daf ko bëgg taxawee fii ci Médina ah lii de mën nañu wax ni benn grand pas la boo xam ni def na ko parce que dañu toll ci contexte bu xaw a particulier bu doy war mu nekk jamono mbas. te ku nekk xam na li sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci mbas mu ñëwee kon nag bu ngeen jëlee benn initiative ngeen nii da ngeen di dugg ci ñi nga xamee ni yelloo nañ ko te soxla nañ ko ngeen bàyyi ñëpp ñëw ba ci daara te ku xam ni daara xam ni mooy lépp waaw kon nag ku bëgg sa mbir baax da nga koy tàmbalee ci daara ndax daara fa la ñuy jàngalee waxu suñu boroom te nag ku bëgg nag yàlla nekkal la da nga koy nekkal ndax man kaana lillaahi kaana allaahu lahu kon nag kàddu kon nag wax ji mën naa bañ a bari ñu ngi yëkkati ay kàddu cant teg ko sa loxo nga jotal ñu ko sëriñ bi nekk daara ji kontaan na macha allah ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla moo xam li mu yéene ak mbébétam yàlla na ko suñu borom sottal te mu nekk njëriñu waa Medina ñëpp ñëpp jëriñoo ko incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. ci barke alquranul karim maa ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a àndandoo ñëw indi teraanga jumil ni ci biir Elisabeth Diouf Solidarité Partage ndax fi ñu toll nii képp koo xam ne kii yaa ngi contribuer ci wàllu mbas mi xamal ni waxuma la sax yow waaye tuyaaba ji ngay am sax xamuloo ko ña lay jàppale aussi tuyaaba ñuy am sax xamuñu ko ndax dañu toll foo xam ne fii képp koo xam ne kii da nga dugg ci lu mel ne structure de santé yi di fa def teraanga yi nga xam ni mooy di di dimbali nit ñi wax dëgg yàlla yonte bi kenn amul sa pay yàlla na yàlla fay yéen ñi ñëw di def reportage bi ak ñi àndandoo yéen ñëpp ak personnel bi yëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla musal ci mbas mi te yàlla dafa leen jàmm sutura xéewal comme ni ko monsieur Cissé waxee nag moom nga xam ne mooy monsieur euh, euh, euh, mooy chef du personnel bi eh, li mu wax kenn mënu ki teg leneen ndax dafa gërëm sant leen ci turu ki nga xam mooy madame Elisabeth Diouf gërëm leen ci turu Abdou Diouf gërëm leen ci turu Maguette Diouf mi secretaire général bi di nga xam ne bi yàqul dara ci li ñuy liggéey ci biir kër gi di leen gërëm di leen nuyu ci turu ki nga xam ne ki mooy Abdou Touré nga xam ne mooy médecin chefu kër gi di leen gërëm ak di leen sant ci turu docteur yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi te di ko jàppale ci liggéey bi ak infirmières yi nga xam ne yi yàquñu dara ci biir kër gi te lépp lu fiy dox gannaaw yàllante bi ñu ngi si ñoo koy doxal ñooy moteur kon nag ñu ngi leen di gërëm leen sant di leen xamal ni kenn mënu am seen pay yàlla rek mu am seen pay yàlla na leen yàlla fay. nga ni paatee ni ko ñun de lii mu def nii daf nu touché parce que mënoon na ko yóbbu feneen mënoon na ko def feneen wax dëgg yàllante su boobaa tamit dañ koy dégg rek xam ni la la doy na ndax mi Medina li fi nekk ci ay nit yu baax ñoo xam ne yàlla daf leen wërsëgale. ñu war a mën a dimbali seen i doomi ndey seen i doomu baay seen rakk ak seeni i mag ak seeni am ji jàmm seen bopp lañ ko defal population bi day ku leen dimbali mooy li ma la wax sànq rek yàlla dana la jàppale te yàlla dana la dimbali.